للمنتقى للمنتقى للمنتقى للمنتقى أنا نبغي سيدنا محمد للمنتقى الذي تقدم سبق ذكر الحكيم من إبليس لبق عليه صلى بسلام صرمدا في الآل والأساب وكل حمدا للمستوى للمصطفى للمصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد ألا يسكن أكد في كوني أغمدنا المختار نور الكون أغمدنا أخمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فأمد صدر العلوم نافعات أفجمت لم ينني شك ولا توقم ولسوى قلبي ينقل وقم قلبي يسنه الجميل عن خبيث وليقود نور في مالي بي علمني من لوقي والقلم من يقود علم ما لم أعلم زلم نفسه الذي عداني لأنه البارس من عداني يعصمني الباقي من الأقدار في دار دنيا وتلك الدار مع النبي المنتقى المنير زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي وقبى بنوري من زن خيرا لا يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودور من زن غير الله يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودر أدر والنفع من الرحمن ليس من البلدان والسودان أدر ونو من الرحمن من الرحمن أدر ونو من الرحمن ليس من البلدان والسودان أدر ونو من الجبار ليس من الفجار والأبرار أدر ونو من الوخاب ليس من الأعداء والأحباب بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله كفيت كل درر يا الله بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أقواه بسر لا إله إلا الله يسر لي العسر كما أقواه يسر لي العسر كما أقواه يسر لي العسر كما أقواه بسر لا إله إلا الله وعلى نبي المصطفى على نبي المصطفى على نبي المصطفى يا الله صل بلا إله إلا الله صلاة من بسلام الله بسر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا والسلام في الآخرة والسلام في مكاننا وسلام في مكانتنا وسلام على عباد الله الصالحين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين la ñaaxeen ñaaxu leen Seex Musaa ñaaxal na leen bi kalaami dem ñàggi ngaay Jurbel du leen jar fa ndaxam ngeen Musaa ñaxal na leen bi kalaam yi dem ñaaxi ngaay yaax la mbaakol bakku leen Cheikh Moustapha bégalal na leen bi kalaam am ngeen mi daay daaroom yow mooy Tuuba wa usuma bi ku fa mënta dem na siyaare ji ñaaxen baate ngaay ya ahmadum lil muhammadil lil muhammadil yawmal qiyaamati sant leen sunu way Cheikh Moustapha yaa xam teraangay waa Kajoor ak waa Bawol yaa yor sangu mbuur yi fi daa dem Lambaay si Ahmadul Muxtaar yaay xutbuna yee xawsuna yaay imaamu yaay Musa aleykum salaamu si Ahmadul Muxtaar yaay xutbuna yaay xawsuna yaay imaamu yaay Musaa aleykum salaamu lillahi waa jàng Madina kenn du Seydina Muhammad madhu nabi almuntaha saadun ila baytil ilahi naasi wa ibbil ilah hubu nabil ilahi sawara saadun ila almadinatu almunawwara muhammadun sallallahu alayhi la ana ku sopp sayyiduna muhammad muhammadun sallallahu alayhi la مسلما بدت لنا علا محمد صلى علينا مسلما بدت لنا علا محمد فرد يفوتني يا وفاق جنوى العدايا محنيا درجة المختار أنا كبك سيدنا محمد درجة المختار حب المرسلين بيعطي الله درجات رسلي كل نبي كل نبي كل نبي kullu nabiyyun wa rasulun yatba'u qalqa wasilatin huwa al-mutabba'u amaduna amaduna amaduna amaduna ku sopp Seex Moodu Musaa ahmaduna amaduna mayil ma masaa wali siwana sa xaman asa li yum sala Muhammad yonent Yàlla Muhammad Muhammadu Rasulullahi sama jëri waay yi ne ma ma maay ana ñu fi gën a bëgg yonent Yàlla Muhammad musalun sifatika linnaasi kama masala nu wat naa ni sama محمد رسول الله أنت الإسماء أنا في جنة la ñëpp def ni ñu magal Muhammadu Rasulullah ay waay te tabaxaw waay sama kër gën ci biir te mooy yonent bi mooy xaatimi nabina ay waay wa imaamul mursalin ana ñu fi gën a bëgg Muhammadu Rasulullah ay waay te tabaxaw الله قبل البروراي محمد رسول الله خدنا الحرام أبدا سروراني كل jërëjëf waaye sëñ Xadim mi toog le le dix décembre mooy bisu bis bi muy defal maam Thierno Ibra Fati ak Serigne Sall waaye pare bi nag da jox président Cheikh Alassane Sène ci daraja yi maamam sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñaanal itam bu baax sëriñ ahmed kunta mii nga xam ni mooy xalifab alxaaji mam buu mi nga xam ni kii fi toog tay moom la wuutu nga xam ni toog na ci xilaafa gi fukki at ak ñaar kooku nag mooy wéy juru soxna sukunta mi toog sëñ Ahmed ñu ngi koy ñaanal waaye ñaanal njaboot gi yépp mu mel ni ñu ngi ci weer tedd waaye nekk itam ci guddi yu tedd muy guddi Seydina Muhammad xam ngeen ni tey jii mooy bisu ngénte li samedi bii jàll ci la Moustapha gane woon àddina waaye Cheikh Seydil Hadji Malick mii dëkk Tiwaawan nag daan na ñëw fii ci Njaasaan daan fi fekk borom Njaasaan daan saafonteeg moom di waxtaan waaye di dundal akuk mbokk alaaji malik bu musaana ñibbi maami soxna sumi moo koy gunge am na genn daqaar goo xam ne fa lan daan ci yoon wi Cheikh Sidi Hadji Malick ni ko gàmm gi dalaa bëgg jël bis bi nga xam ni ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam gën a àddina ma di ko màggal waaye maami soxna su nag ni ko bu bis bi del see man danaa def ngénte li looloo borom Ndiassane jëlul bis bi nga xam ne moom la Cheikh Sidi Hadji Malick di def Tiwaawan kon nga xam ne mag ñi mbaax la ñu ànde woon danoo wax ni nag ku jur doom nag sañ a ngénti moo waral ñii ñuy ngént seen doom ndax rasulillahi seen maam waaye uqbatul musajab mooy seen maam sufiyatu doomi abdul mutalib moo leewu woon uqbatul musajab mii seen maam rasulillahi alayhi salatu wasalaam mu indi ko ba ci moom mu jël toqantal tiflitu boppam moom rasulillahi dugal ko ci gémminu xubatul mustajab nga xam ni daf ni ko ba àddinay tukki lu ngeen ñaan sunu borom def ko ñoonu nag ñooy mi soxnaasu mu woote nag bis bii waaye njaasaan gépp woote ko waaye ku xooli itam bis xam ni këru diine yépp ñëw nañu fi soxna benn moom Cheikh Mamadou Fadal moom Serigne Touba mu ngi ni toog di ku yàlla baaxal waaye muy kenn itam ci soxnaasu Serigne Khadim Mbacké Kamal moom Serigne Soubayrou moom Mam Thierno moom it mu ngi ni toog mu dend président Cheikh Alassane Sène mi nga xam ni moomit it kenn la ci soxnaasu cheikh moustapha ndiaye alkarim mu ngi ni toog moom it di sëtu cheikh daru asan waaye mu dend itam sëñ ahmadou tasrif sugu mii nga xam ni moom it sëti cheikh jire waa daan la waaye mu dend ak al akim mii nga xam ni moom it ñu ngi ko fay sëriñ abdoul akim moom cheikh ahmadul bachir mu ngi ni toog soxna maam jaara Mbakke moom Serigne Koso moom Cheikh Modawa Balla mu maam Thierno Ibra Fati Ndaamal Daaru mu ngi ni toog soxna Aytulaay mii nga xam ne doomi Serigne ma ma ñoon moom Seydina Isa moom moom Seydina Limaamu mu ngi ni toog Serif Aydara mu ngi nee toog Serigne Ahmed Dam Aydara mu ngi nee toog waaye Serif ma maala Ayni Aidara moom it mu ngi ni toog Cheikh Moustapha Mbacké borom Taïba di doomi Serigne naa moom Serigne Cheikh Penda mu Mamor Diarra borom Sam mu ngi ni to Serigne Modou Dia moom Serigne Cheikh moom Serigne moodu moom Cheikh Mor Dia Ndiar borom Ndiar mu ngi ni toog Soxna May Mbacké moom Serigne Cheikh moom Cheikh Modou Fati Khari moom ma Massamba mu ngi ni toog démb la fi seex ma samba ñëw yendu fi fanaan moom seriñ Serigne Mamoor mu Seex Masamba doomam a ngi ni toog Serigne Mbàkke ture bari kàlla moom i sëtub Serigne Aline Touré mu ngi ni toog Serigne Assane Bousso mu ngi ne toog di sëtub Serigne Bousso be Cerno Bokar ca Fuuta moom it ñëw na mu ngi ne toog Serif Aydara mii nga xam ni kenn la ci Seex Mustafa waaye kenn la ci soxna si moom it mu ngi ni toog waaye sëriñ ma dikk sekk di sekk ci maam ama di ñëw nag ci ganu soxna si di sunu gan ñun ñëpp di borom bis bi ni ko sëñ Modou waxee rek ñun ñëpp nangul nañ ko loolu muy Cheikh Alassane Sène ñu ngi lay xamal ne la ñun boo amee soxna si am nga nu soxna si boo ko amee am nga nu am nga nu bis bu bis bu la ne soxna si ne bisimilah ci yow engagé woon nañ ci yow engagé woon nañ ci yow ndax moom engagé wu nañ ci moom ba noppi moom soxna sumi kon maa ngi lay xamal loolu di la sant bu baax ndax Modou Mbuub ni nga ko téyee dara ump ma ci ndax Modou jaxasoo na ma moom lool lool lool du dugg lu ma yëgut lépp la ñuy waxtaane maak ak moom am sëñ Modou Mbuub kon ni nga ko téyee rek doy na sëkk rawatina xam nañ fi sa yitte tollu kon cër bi nga jox soxnaa su loolu mënuñu la ko fay man jàpp naa ne fii ku fi teew mën nga fi teewal lu fi waaye def jàpp naa ne man nga ko defal moo tax maa waroon a tudd nit ñi kenn par kenn di leen sant kenn par kenn kon nag sëriñ Cheikh Alassane Sène wala président Cheikh Alassane Sène ñaar yooyu yëpp benn bu ci nekk mën nga ko wuyoo ndax réewum senegal li fi yegg eggaguñ ci président de la république bu conseil des ministres jeexee àllarba ba seet alxames ajjuma mu mën a dem ca ci minbaru jumaay Touba taxaw def xutba jiite ñaar rakkee aljuma amaguñ président bi ñu war a am ñun président boobu lañu war a am président boo xamante mën naa taxaw ci minbar bi def xutbaam jiite ñaar rakkee aljuma ñaanal mbooloo mi delluwaat ca pale ba président bu mel noonu la Sénégal war a am loolu nag xawma ci ku muy sottee waaye saw doxalin rafetlu nañ ko keroog bi nga defee émission yaag Pape nga Ndiaye yaakaar naa ne sëñ Modou du bàyyi ma wax noonu noonu laa ko ko woowee ca sansa ne ko man de am naa ci moom yaakaar ca guddi ga ba nga defee émission bi jeexee rek ci pré campagne bi ba ba jamonoy campagne bi bi bi émission bi jeexee rek dama ko seetaan ba mu jeex takk takk takk takk te néew na nag la may tooga ci télévision di seetaan une heure de temps émission waaye keroog bi nga tàmbalee ba ni nga jeexalee dama ko suivre ba mu jeex takk ma woo sëñ Modou ne ko Seex Alasaan mii di am naa ci moom yaakaar yàlla na yàlla na yaakaar yàlla na doon yaakaari réew mi yëpp te bu doon a yaakaari réew mi di yàlla bu yàlla tas yaakaar yooyu ci barki alxuraanul karim moo koy ñaan suñu boroom bu baax. bi may woo ci kaw di ma yóbbante ay kaddu ci président Seex Alasaan xaw tuuti mu jooy dafa wax ni rakkam bi mu nekkee ci nattu yi muy sëñ Abdoulaat nee na bu deful yàlla ak sa jëmm. nee na yaa ko taxaw ci biir yaa ko taxaw ci biti daal ni bu mënoon a jël micro bi day jël micro bi ñëw jàkkaarloog yow wax la li mu la bëgg a wax kon président Cheikh Alassane kaddu yi ma lay wax kaddu la yoo xam ni mu ngi bàyyi ko ci soxna May mi toog bu Serigne Cheikh bu Cheikh Modou xër yi moom sëriñ ma Massamba. bëri na ñoo xam ne tey jii ñu ngi fi toog bi ñu yégee ni da ngay ñëw ci bis bi ñu bari bëgg nañoo jàkkaarloog yow am na ci ñoo xam ne ay audience la ñu bëgg ngir ànd ak yow ci 2024 bi nga xam ni song nga ko war a dugg nag ci palais bi te bis boo duggee ci palais bi nag ban def soxna euh, Astou Kounta ambassadeur à Koweït wala ambassadeur Idriss en Arabie Saoudi loolu leneen lay doon kon fii nga toog nii li Cheikh Moustapha seede ci yow sëñ Assane Seck xalifa maam Amary Ndak mu ngi nii toog moo ko seede nee na naw na la lool maa yi siise ne seexal Sandaga wat di génn di wax nit ñi di la déglu Cheikh Mouhamadoul Mountakha man ak man ak yow ñoo ànd li ma la wax doy na Cheikh Bass mu Cheikh Abdoul Khadir moo wax ci màggalug Tuubaa nii soxna moom mu sëñ Saliou moo yëkkati téléphone am woo ma man Cheikh Bass ni ma kii ñëw ci man sama dooma ne ngeen ko gàttandu te ubbil ko résidence bi te dalal ko Cheikh Bass Abdoul Khadir nii soxna moom mu sëñ Saliou daraja ci boppam fëkk ko waaye alal fëkk ko kon yow am nga cër bu rëy ci bis bi kon nag kaddu gi nag dafay tabb ci yow waaye les communicateurs ak les chanteurs amu leen affaire ak seexal san man ngeen affaire amal affaire tey li ci sama poste du jeex te dama koy séddale ba mu jeex tak loolu na leer loolu na leer ginnaaw bu ñu santee yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam moom aba zahra moom sangu màkka moom sagu medin moom rahimahullahu rahmatan waasia wa salawatullahi alayhi wa ñi ngi ndokkeel ñépp ci bis bu màgg bi ñu tàbbi fii ci Njaasaan sëñ Moustapha ak sëñ Xaadim maa ngi nuyu nuyu bu tedd di ko jaarale seen loxo mu jëm ci njabootu képp kuy kunta nuyoo bi nag ñu ngi koy teg ci loxo soxna astu kunta di sunu sunu lépp di ko ñaan mu teg ko ci loxo doomi soxna yi fi toog yépp ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi lii laa bëggoon sëriñ Xaadim ak sëñ mustafa ngeen seddeel ma ko ndax olof Njaay sax dafa wax ne ku lim waaye damay wax ne ku lim fàtte soxnaasu bis bi daal daa méngoog sa jëmm méngoog sa dayo méngoog sa jikko ndax Sénégal moo moo teew tey ci guddi gu tedd gi ñu amal ndax doomi soxna yi ci kër gu nu mën a bokk kenn ku ne toog na fi tey ji ànd ak yow ci bis bi ànd ak yow ci guddi gi ba noppikat wan leneen seen bisu bopp la loolee la sëriñ Moustapha mandargal léegi ci jógam yi mu jóg ak ni mu doom terale ñi fi teew waaye dinaa beral nuyoo nag di la ko ñaan sëñ Moustapha sëñ Xaadim sama jarbaat soxna Ayta di jarbaat ci man ñi xamul xamuñu waaye wax dëgg yàlla li ma boole ak moom lu rëy la doonoon nijaayam nekkoon ci man amoon taxawaay bu rëy rëy sama wet moo tax maa ngi koy nuyu di am mbegte gisaat ko ci ëtt bi maa ngi santaat bu wér kàddu yi du du gudd nag ndax wax naa ko léegi ne sëriñ Moustapha eh, yóbbu yóbbu nga ma sax ci ay kàddu ci ci sa bi yaa ma yaa ma wax sax waxal rek waaye sinon kàddu yi nga yëkkati doy na sëkk ci ay kàddu damay faral nag di wax ne Cheikh Ahmad Bamba dafa am lu mu jàngale ci wàllu taxawaay ci doomu aadama ci société soo ko déggee ndax suñ boroom mooy wax inna fi xalqi samawati wal ardi laa fi leyli wa nahaar la ayatin li ulil albaab ci boroomi xel yooyu muy waxal baytu cheikhul xadim boobu boromi xel yi tamit la waxal ndax bayt bi jéggi na jëmmam moom cheikh ahmad bamba mais daf ñu ko xamal ngir ñu ñu doxee jë bayit yooyu muy xaddin sarrafat xaaji ila fatixi ratxi wa inni loo abdul wali jaada bil itxi euh, muy service ak anoblisma goreel ñu goreel la ba noppi nga àggali tàbbi ci liggéeyal yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam loolee la soxna astu taxawee bis bi nekk sang bu tedd ba noppi wëlbatiku di béggal képp ku tàbbi ci ëttu maam boobi te kat jikko ji Sénégal yépp xam nañu ko ci moom Modou sax junj na léegi ne engagement engagement engagement loolu sax duñu ko waxtaane tey li am solo daal mooy ñun soxna astu bëgg nañu la fonk nañu la dañu lay sago di la tiitaroo loolu sëñ Moustapha wax ba ku ne di fi daagu si ci sa ëtt wi cofeel gu mat sëkk la moom lañu la ëmbal di ñaan yàlla sa taxawaay bii ci biir ëttu maam bu yal na ko yàlla gën a fësal ci réew mi ndax su gënee fës ci réew mi mu nekk jàmmi réew mi ndax yow sa dund lépp lépp jàmm la ak lewet dangay jàngale sax ci sa toogaay ak ci sa dàmm sa loos dangay jàngale yar nit te doo wax donc yow daal li ñuy ñaan suñu boroom mooy nga yàgg fi te ànd ak wér xew bi nag ni ko sëñ Moustapha waxee rek lañ koy waxee ñun ñëpp xamal ne day sunu xew la ñun ñëpp te saa su amatee nu mel nii rek lañ ci war a taxawee ñun ñëpp rek ci barke yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam kii way léegi dafa wax cheikhul cheikh Ahmad ba nee na soo bëggee xam dëgg-dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam dangay ngay yër surat naj mi aaya benn ba fukk ak juróom-ñett loolu nag kéemaan gi ci ne mooy soo koy jàng man de tax na Cheikh Ahmad Bamba moo tax ma bëgg surat bi waaw wa wa najmi ida hawa ma dalla saahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyun yuha allamahu shadidul huwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil axla summa dana fa tadalla fa kaana xaaba xawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadaba al fuaadu ma raa afatumaaruunahu ala ma yara wala xat raaw nazlata al oxra sidrati l muntaha indaha jannatu is yaxsha sidrata ma yaxsha ma zaaha al wa ma taha la raa min ayati rabbi il li ci yéeme alhamdulilah li ci yéeme mooy soo ko jàngee ba noppi yàlla daf lay inspiré nga yër isra wal mihraj ci aaya bu njëkk bi foofu nag ngay xamee dëgg-dëgg ne yonent bi rañaanul benn yoon ndax fii dafa wax la hadra a min ayati rabbi il kubra afin de lui montrer certaines de nos grandes merveilles feneen fi mu wax subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa ila al masjid al aqsa allazi barakna xawlawo li nuriwo min ayatina innahu huwa samiul basir fee dafa wax certaines de nos grandes merveilles fii mu wax afin de lui montrer nos merveilles nga xam ne yonent bi rañaanul benn yoon soo ko jàngee nga xam ko santaat nañu bu wér ci guddi gi ñu tàbbi sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum dafay fàttali nit ñi li yàlla wax ci digganteem yonent bi ci la défense bi yàlla amal ci yonent bi sécurité wa taxsha naasa wallahu axaqu an taxsha digganteem yonent bi ak ay noonam ni ci yàlla taxawee ba kenn mënta fay liggéeyam bu tedd boobu moo tax suñu réew sëñ Moustapha suñu ko bëggee jagal ni mu war a jagee ñun waruñu def différence entre ñi bëgg yonent bi alayhi salaatu ak ñi incarné une république boo xam dañ ci war a génnee yonent bi mënta ne ndax réew mi ñi ko sanc sooke ko seen dund yépp li tax ñu xam leen ràññee leen bëgg leen fonk leen di leen safoo di daw di leen topp di dof ca ñoom seen dund yëpp dañ ko jox gën gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam wax naa benn nit moom géologue la ma wax ko ñun suñu pétrole ak suñu gaz li ko feeñal suñu réew du lenn lu dul mag ñi fi daan tagg gën gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñal mu ne ma lu tax ma ne ko ndax su nit génnee àdduna biir bàmmeel ñaar ñoo fa nekk muy sax ak suuf te su yaram bi miinee salaatu ala nabi di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suuf si du ko tànc sax bi du ko lekk du laal càngaay bi sax su nekkee ci biir bàmmeel te ku weddi loolu da dem seeti ñi def ñaar fukki at ci cimetière yi dañuy garder bàmmeel yi nga laaj leen yenn saay ñu gas yem ci càngaay boo xamante ne am na fanweeri at te yàquwul ndax salaatu ala nabi suñu réew bi tamit suñu bëggee mu jàkk ma ne loolu rek la def ndax sax boobu ak suuf seen sang mooy gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci topp mooy pétrole ak gaz yàlla moo ko def ci biir suuf or yàllaa ko def ci biir suuf te ñoom ñëpp ay taalibe gën gi mbindeef lañu sallallahu alayhi wa sallam te la mag ñi ñaanoon ngir réew mi dal ci naataange dal ci ci ci ci ci ci ci yiw ak dal ci ñëpp am jàmm ci koom bu yaatu lenn kese mooy solution bi mooy reconnaître suñ cofeel gu mag ci gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waxtaan bi tey mënta génn yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam fii ba suba suñu fi toogoon moom kese lañuy ñuy waxtaane ndax ni mu mel euh, ay jikkoon yu teddam mu ngi ci soxna asumi toog ci wàllu yërmande gi mu ëmbal jaam yi ci wàllu bëgg nit ci wàllu fonk nit ndam sax kenn ku ne ci ñëw am nga sa programme bopp bi ngay ñëw fii programme psychologique laa wax waaye nañu ànd ak dal rek xam ne yàlla defal nañu yiw bu rëy ba ñu tàbbee ci guddi gu tedd gi maa ngi sant ñëpp di leen dellu di leen gërëmaat di leen santaat sant bu wér ci jotaay bii ñu am di ñaan sun boroom moom mi mën lépp xam lépp ne fépp te umpalewu lenn yal na nu fajal sunu aajo yépp yokk suñu mahabba rasul sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla dimbaleel boppam dimbali biir ak dimbali biti ci barke gën gi min ndeef sallallahu alayhi wa sallam alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yuhmin wa man shaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waa Touba ñoo la gisagul Cheikh Assane waa Touba yi waa Touba yi.